almaradu feebar xopp maradaani ñaari opp la imma benn badaniyun feebar ab yaram boobu moom nañ dem ci hôpital yi aw qalbiyun wala bu xol kookit war na am hôpital xanaa waaye boobu hôpital bi moom ñi ñi mënta faj ñoo ca nekk tey mm-hmm. ñi xam ne waa ma <laughs> ñoo nekk foofu tey